seen bi ñu tuddee seen kii bi bi di am mbégte bu baax di dalal kenn ci borom xam-xam yi ñu Imam Ndiaye ci laaj ak tontu seen xam seen diine rawatina ci weeru koor bi ñu nekk ñu ñëw moom ci ay tomb yu am solo di ñaan yàlla lépp lu fi taataan rek naan ko yàlla nangu kon imam ngi lay dalal bu baax di rafetlu xam-xam bi ci jataay yu bari yu ñu ànd ak yow wa tabaarakallaahu tey ñu ñëwaat amaan mbégte dalalaat la ci seen biir euh, bi ñu njëkk nag di posé suñu imam mooy di istiqbaalu ramadan di laaj nan lañu war a imam kon tafaddal mashkur bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayibina tahirin yéen mbokki auditeurs yi seetaan seen Senclic TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara gannaaw bi ñu amee mbégte lool ànd ak al oustaz al imam Haji Mansour Kane ci émission bi ñu tuddee xam sa diine mooy laaj ak tontu. ñu am mbégte tey ci jeetaay bu mel noonu eh, ñu war a wax nag lu aju ci koor gi eh, imaam laaj bi nga xam ne moom nga njëkk a laaj bala ñu ciy tontu dañuy ndokkeel jullit yi ñaanal àddina si lii nga xam ne moom la yàlla teg muy mbas mi ñu ñaan weeru koor bi ñuy jëm yal na yàlla def mu yóbbaale ko ñi ci tawat yal na yàlla saafara leen ñi ci dem barzaq yal na yàlla yërëm leen ñaan yàlla subhaanahu wa lii ñuy wax te seen du ci lenn lu dul rekk gindi jullit yi yàlla nañu ci yàlla defal tawfiix ak taysiir ba lépp liñ ci wax rekk mu nekk luy jëriñ jullit yi e, ñu nuyu nag gërëm bu baax sunu caméraman bu am yitte bi muy Keba Sané waaye ñu nuyut ki nga xam ne mooy jiitu groupe bi muy Souleymane Ba ñaanal leen yàlla seen bi yàlla na ko yàlla gën a jëmmal ba lépp luñ ci yéene ci xamale diine ak jikko yàlla dimbali ñu ci mu mel ni laaj bi nga laaj eh, Mansour laaj bu am ama solo la bu jar di laaj la li tax mu jar di laaj mooy weeru koor dañ ko war di teeru ndax dañu wax ni ku am gan danga ko war di teeru surtout gan goo xam ni li ci nekk ci yiw li ci yëg nekk ci ngéneel gan googu képp kuy ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu muhammadan rasulullahi war nga ko teeru kon istiqbaal bi mën nañ wax ni jullit nan la war a gàttanoo weeru koor ni mu ko war a gàttanoo bi ci jiitu mooy na ci def li ñu tudde a tawbatu nasuh te mooy mu tuub tuub gu dëggu muy benn gannaaw tuub gi nag mu fas yéene wagasu te mooy wagasu bi mooy takk ndigam góorgóorlu ci lépp loo xam ne mooy taaxa te mooy jaamu yàlla beneen bi ci des mooy mu préparé ko préparation boo xam ni lépp luñ ci wax ci jaamu yàlla muy bëccëg gi muy guddi gi jullit bi war a fexe ba loolu Mansour mu fexe ba sonn ci lu tax mu war ko teeru war ko préparer mooy boole ci sant yàlla sant yàlla gi mooy am na koo xam ne fekkewul weeru koor bi am na koo xam ne fekk na ko waaye talul ko wax woo tax dafa feebar yow mi nga xam ne nag yàlla may na la nga fekke ko yàlla may na la nga mën ko woor yaa war a gën a sant yàlla waaye jullit ba mu mënta doon même bu dul woorul sax war na sant yàlla ndax nafaxaat raxamaat yi nga xam ne mooy nekk ci weeru koor defe naa ne ab jullit war na ko mën a teeru bu baax a baax teeru gi mooy fexe bala muy ñëw lépp lu mu amoon ci ay boru koor mu fay ko ndax lislaam weeru koor du la wàcc boo ko amalee ay bor kon bokk na ci nga fay say bor yooyu daal jàpp naa ne Mansour noonu la jullit war a waajale walla teeroo li ñu tuddee shahru ramadan mubarak seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana euh, bégal saxaabatul kiram ci boo demoon ba weeru koor di jub si nga xam ne bokk na ci lim la doon wax daana li wax ne ataakumu ramadanu shahrun mubarak maanaam weeru koor dikk na ci dikkal na leen mu nekk weeru bu barkeel waaye weer la boo xam ne faradahu llahu aleykum yàlla moo leen ko farataal pour ngeen woor ko mu ne nag li tax mu am solo yonent bi ne leen tuftahu fiihi abwaaba sama maanaam dañ ci ubbi asamaan yi bunt yi ci nekk yëpp dañ koy ubbi beneen bi ci la ko fii abwaabul jahim dañuy tëj buntu jahim safara waaye beneen bi ci def wa tuxallu wa tuxallu fihi mardatu cheytaan maanaam ni ñu tuddee cheytaane dañ koy jéng beneen bi ci des mooy fii wa fiihi laylatuna xayrun min alfi shahrin weer bi ñuy teeru Mansour yonent bi nee na am na ci benn guddi goo xam ne moo gën junne weer mu wax ne nag fa man xurima xayraha faqad xurima ku fexe bo li ci waroon a jëlee jëlee ko ci yow yaay ki ñàkk kon jullit bi nii la war a teeroo weeru koor xaj Mansour. kon euh, imam foofu tamit. xadis mhm. bi danañ ci sàkk mhm. maanaam ñi seen tagaatu nafs ci mhm. dégguñu xadis bi. dégguñu li tax dégguñu xadis mooy. Euh, weeru koor dafa am lu yéeme lu di ci nekk yoo xam ne na ngay seetlu Mansour coow li lu mu bëri bëri. bu weeru koor ñëwee da nga yëg ne nit ñi wàññi nañ seen dàngat ceeg caay-caay. ñi nga xam ni ne daanañu dem fecc fecci daanaka danañ ko arrêté mm-hmm. la preuve sax mm-hmm. bu weeru koor bi jub see moom lañ doon wax léegi mm-hmm. da nga gis ñoo xam ne dañuy commencé di sawaru bala ah, bañuy dugg ci weeru koor bi kon li lay won ne fin de saison mu ngi noonu ah. beneen bi ci des mooy diidaa weeru koor bi duñ ci def dara ah, dañuy at ndënd yi dañuy aj fomi mhm. kon loolu li muy mooy weeru koor dañuy jëng seetaane kon loolu moom lañ koy dégg ci ci xadis bi beneen bi ci des mooy mhm. yonent bi bokk na ci lim doon wax mhm. euh, bu weeru koor jub si woon daana wax ne allahumma ailu alayna bil yamni wal imaani wal salaamati wal islaam ay daana wax ne yow yàlla weer wii yàlla na ko fexe ba mu njëllu siwaat ci ñun ñu am kàttan di ko woor mu ànd ak al yumnu ànd ak al iman ànd ak assalaam ànd ak islaam mu ne nag rabbi wa rabbika allah wa rabbuka maanaam yàlla yow weer wi yàlla la moom man mi muhammad ak sahabatul kiram yàlla moo ñu moom lii nag boo demee ci al azkar bu imam nawawi indi na wax ji kon noonu la ñuy waajalee weeru ko xaji mansour kon siyaam fi ibtidaa islam. Mm-hmm. ñu laaj ko mm-hmm. woore daal. ok Xaaji mm-hmm. eh, Mansour laaj bu am solo la. ndax ku xool nit nit ñi woore da jàpp ne dañ xëy a xëy rek di woore noonu. fekk na njëlbéenu islaam ñetti fan maanaam dañ doon def weer weer bu nekk ñu woor ci ñetti fan. boole ko Ashura. biñ demee nag ci ñaareelu at. ci gàddaayu Seyduna Muhammad ci la xadis eh, ci la aaya bi wàcc digle weeru koor moo tax eh, bi mu wàccee ci lañ commencé di woor nii ñuy woore ndax aaya ba mu wax eh, ba nga xam ne wàcc na kuti yaa ayyuha llazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina la qablikum laalakum tattaqun foofu nag mu am solo la moo ci nekk Hadji Mansour yàlla bu waxee ne yéen ñi gëm yàlla mm-hmm. te dañu wax ne Abdullah ibnu Mas'ud moo wax ne saa yu ngeen déggee yaa yor lazina amanu woote yàlla la kon ki muy woo mooy ki gëm yàlla ne na yow mi ñu woo nag yàlla woo la ba pare nee na déglul déglu ko benn mu wax la lu lay jëriñ wala mu tere la loo xam ne boo ko bàyyi jële ci njëriñ kon képp kuy jullit rek war nga déglu wax jooju yaa yor lazina amanu lu mu ci teg faratal nañ ci yéen weeru koor comme niñ ko farataaloon ci ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon kon am na ñu fi jiitu woon xeetu Muhammad doon daan nañ woor mais Muhammad bi mu ñëwee avant ñu koy jox lislaam avant ñu koy jox weeru koor dañ doon def weer bu nekk maanaam ñu woor ci ñetti fan bi ñu demee nag ñu boole ko Ashura bi aaya bi wàccee nag ci lañ commencé di woor comme ni ñu wooree xaji Mansour am na dégg-dégg bu am solo. Mm-hmm. kon mën nañoo jàll si ñetteelu laaj bi rek. Mm-hmm. ak temaasu hilal Ramadan mm-hmm. a jàpp weeru eh, nga euh, Mansour. réew mu nekk. tey boo xoolee Sénégal am na commission boo xam ne mooy seenu weer wi. c'est-à-dire nit ku nekk jullit bu nekk war nañu am yitte seenu weer wi waaye nag foofu nekkul ne ñépp a ko war a mën a def. kon mën nañ wax ne boo ko doon xool fardu kifaaya lay doon bu amee ay jullit ñu ko taxaw wàcc na ñeneen jullit yi ndax ñoo ñoo koy seenu bu ñu ko gisee informé ñi ko gisuloon su boobaa dana wàcc ñun ñu seenu wóolu weer mais seenu googu nag danañ wax ne ñu ngi koy def bu weer wi amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent vingt-neuvième jour ci weeru Shaaban ci la ñuy xool seenu weer wi bu jant bi sooyee foofu nag bu fekkee ne gis nañ ko tey comme tey mooy le vingt neuf mooy lundi bu ñu ko gisee Hadji Mansour suba dañuy woor bu fekkee ne gisuñu ko suba muy fanweereelu fan ci weeru Shaaban su boobaa nag àllarba moom fokk ñu far force lay doon xam nga lu tax mooy weer du am fanweeri fan li tax ñoo loolu mooy Seydunaa Muhammad moo wax ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma am na wa am naa riwaay boo xam ne pan rabiya mm-hmm. aleykum mm-hmm. su fekkee ne dafa lënt mm-hmm. lënt gi mooy tekkiwul ne weer wi feeñul lent gi li muy tekki mooy mu ngi fi waaye mu ñoo ko mënul a gis ak bët asamaan see ko mën a bir kon xumma mu ne su fekkee ne nag dafa dafa am niyaas dafa am ay ay ay saxaab yu ci nekk bu nga xam ne du ñu mën a gis weer wi su boobaa ñu ne na ngeen def weeru chaabaan fanweeri fan loolu moo tax ñu xam ne weer du am fanweeri fan. Mhm. su amee fanweeri fan nag. Mhm. su boobaa ba ca topp. Mhm. mooy doon première ci weeru Ramadan. lii daal noonu la ñu war a seenoo weeru koor. kon imaam boo dégg ne di amante politique ci seen biir. parce que yow ci daal bi nii. jamono yonent am na benn sàmm bu ñëw ne ko gis naa weer yi. dafa Mouhamed wax mooy nag gëm yàlla mu ne waaw. mën mhm. nga gëm bis ci nit nit mhm. dëgg la mhm. euh, waaw gis nañ ko gisuñu ko ñii dañuy wax ñetti. yooyu yooyu Mansour. la lu naqadi ñëpp la. waaye lu fi naqadi jëlee la nag. xam nga boo seetloo jamono Seydunaa Muhammad dama wax ne valeur. Mm. yi nga xam ne moom la jullit yi jamono yooyu amoon. Mm. mën nañ wax ne jullitu yi léegi amatuñu ko maandute bi nekkoon ci ñooñu maandute googu amatuñu ci ñoom ndax bu njëkk jullit daanaka waxam bu xasee wax rek jarul waat jarul waat te fi mu ne ni jamono ji yàqu na yàqu boo xam ne danga nga gis ma Mansour ku lay waatal te la may wax du dëgg xam nga yow mi boo doon jënd portable tey eh, boo dajee koo xam ne dafa gëmul yàlla dina la wax ne première qualité la wala mu wax ne nangam la boo ñëwee ba jënd ko da ngay dem ba ci biir yëg ni lam la waxoon dara du ci dëgg et pourtant dafa waat ne euh, qualité boobu la original laa la jaay dina am ci portable dina am ci leneen kon li muy tekki mooy ñooña bu fekkoon ne jamono ji ñëpp noonu lañ mel kon kenn bu ko defee moo tax ci wàllu gis weer wi sax il faut mu nekk ñaar ñu màndu ñaar ñu màndu bu ñu amee ñaar ñu màndu rek bu ñu ne gis nañ weer rek mën nañu woor léegi nag mandute boobu adlu bi boroom xam-xam dañuy wax ne il faut mu nekk koo xam ne les yi min allazina yajtanibuuna al kabair mu benn xam nga jafe na beneen bi ci dañ mooy saxaayir yi tamit lu dul loo xam ne peut-être njuumte la mu bañ ci dugg kooku la ñuy wax ne mooy ku aadil ah, koo xam ne moo maandu bu fekkee ne loolu amul ñu ne mu nekk mbooloo groupe gisandoo ko su boobaa dana ñu mën a woor yi danañ mën a woor mais nag bu fekkee ne nit ki kenn rek a ko gis dem ci xaadi bi wax ko ko xaadi bi bañ a bañ bañ bañ ne gisu ko su boobaa moom ki koo wax dafa war a woor ndax moom shahida te dañ wax ne fa man shahida minkum shahra fal yasumu te moom gis na ko kon moom fokk mu woor léegi nag waaye contraire bi mooy am bu fekkee ne dañ doon waaj a wor yi léegi bu fekkoon ne gisoon na ko